c'est bon mbokk yi jërë ngeen euh, jëfati ci ànd bi ak bi ngeen di ànd ak euh, Walfadjri rawatina euh, chaîne bi nga xam ne ci la ñuy daje àll ba bu jot di waxtaanee actualité am réew mi ni ñu koy defee bés bu nekk rek xam naa tey xaw nañoo tardé tuuti waaye bala ñuy commencé rek ñu ziar ñi nga xam ne ñoo ne ci ligne bi commencé ñu waxtaan fim mu commencé ñu seetaan. Euh, ki ma ci naroon njëkkee mais dama koo mere dama koy bàyyi parce que naar jën la tudd euh, mu ne Serigne Moustapha xanaa tey maafe nga añee naar añew ma maafe mais comme noonu nga ko jàppee léegi damay seeti keneen euh, jox ko nuyoo bi muy Pape Bouba Ba moom mu ne Mané Ballon d'Or amin yàlla na ko yàlla def bu fekkee ne defaguñ yëgaguma ne jox nañ ko ko ba pare Khadim Ndiaye salaam Moustapha di la ziar on vous suit depuis Saint-Louis Euh, sinon sa santé bi sa sant bi jaay ma ko sant bi boobu ma ko jaay euh, yow kay yaay ñëw rek comme njaayeen moom waaye li ma waaj waxoon koo gis ko sant njaay njaayum jàmbur la nga ñëw sant Jóob rek sëñ Xaadim hmm? euh, El Saleh ñi ngi lay nuyu bu baax di nuyu bu baax Mamor Cissé artiste peintre la ma nga nekk ca Touba Daaru Xuddoos di nuyu di ziar Baye Sall li Euh, Chérif Danfaxa également moom it mi ngi ànd ak ñun euh, Sal Sal Salif Dieng ñu ngi lay nuyu bu baax euh, l'œil du développement l'œil du développement li mu wax dafa am solo parce que daf ne retard bi xaw ma mais ëpp na nag waaw ëpp na tey retardu ñaata minutes la jéen vingt et quelques minutes ah. Euh, ñu ngi ñu ngi ciy jéggalu baax na xam naa aussi bon euh, nit ñi duñ koy xam euh, mais entre installation beeg coupure courant yi ma doon gis sànq ba léegi ça complique le travail mais incha allahu rabbi dinañ fexe ba li ñu amul yéene waxtaane ko tey lépp lépp dinañ ko partage ak yéen Doudou Congaan Moustapha dosé bi doy na mais man du ma du duudu man du ma dosé <laughs> Ousmane Ba wal fajiri tele askan bi ñu ngi lay nuyu bu baax euh, fari Laxaat euh, Fall ñu ngi lay ziar di ziar bu baax Ali euh, Touré mu ne def naa la sama xarit te gisee guñu mustafa yow tamit Ali jàppal ne li Oustaz Aliou Sall di wax rek ko bëgg-bëgg na la yow tamit def nañ la suñu xarit di ñaan yàlla mu dogal ñu gisee incha allah Momat Thiam ñu ngi koy nuyu bu baax. Euh, di ziar euh, Baye Laxaat Ndiaye maa ngi koy wax sànq moom euh, kii moom ni mu tuddee boppam du ma ko liir ah mu ne Moustapha tu nous dois mille francs par minute de retard waaw kon dina dina bëri <laughs> Chérif Dampakh ziar bége mondial kontaan nañ si yow jërëjëf Chérif Mandiaye Diagne ñoom tamit ñu ngi koy ziar bu baax. Euh, Diallo Jibi Jibi Diallo ñu ngi lay ziar Moustapha Moussa Seck Fallou Amar su ma ko doon topp nii mën naa koy liir ba mu euh, ba fii ba ngoon du jeex parce que nit ñi euh, cofeel bu ñu am ci jataay bi ak bëgg guñ ko bëgg di ko partager ak ñun mais ñoom ñëpp daal ak ku ñu mënti doon ak fu mu mënti nekk ci àdduna bi ak foo ñu mënti bind rek jàppal ne lu bëgg suñu xol la te que très souvent sax man su ma paree live bi damay jëlaat sama temps di liiraat ndànk-ndànk euh, yenn commentaires yi parce que lu am solo la alors tey naturellement euh, ci élection législative la ñu nekk élection législative bi euh, campagne bi 21 jours la woon defe naa si li ma liir ci presse bi tey mooy 10 jours moo ci des donc moitié bi dem na dafay baax kon ñu taxaw def seetlu un peu ci campagne bi ak ni nga xam ne noonu lay tëddee ak li nga xam ne moom lañ ci jot a dégg. Euh, dafa am koo xam ne euh, dinañ ko waxtaane sànq parce que nag campagne bi bu xumbee euh, du ma ne lépp mooma mais def na ci lu baree bari mooy Ousmane Sonko tey ñu wax ne ñu tudd li ñu titré Ousmane Sonko intrus et phénomène de la campagne wala phénomène de législatives dinaa ci ñëw léegi pourquoi ñu ne intrus en même temps phénomène dinaa expliquer lan moo ko lan moo ko waral mais soo xoolee campagne bi de manière globale Euh, sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo koy euh, seetaan euh, dañuy jàpp ne au moins ñaari coalition ngay jàpp ne campagne bi dëgg-dëgg xumb bi foofu la nekk yeewi askan wi ak Benno Bokk Yaakaar Benno Bokk Yaakaar man je di tout de suite man j'aime bien la campagne de de Mimi Touré pourquoi parce que je trouve que cette campagne là comme ni ko suñu benn confrère bindee c'est une campagne très Mimi ah une campagne vraiment boo xam ne dafa dafa dafa mignon ni mu koy defee dangay gis beneen Mimi Touré boo xam ne bokkul ak bi ñu miinoon trop muy une Mimi Touré très sévère euh, bañ ko doon tuddee la dame de fer ñu bari jàpp ne foo ko fekk euh, cib xeex lay nekk mais la da nga koy gis euh, ak ay pas de danse ak ay un large sourire loolu moom defe naa campagne rek moo ko man loo politicien mooy fàttali en élection législative 2017 ya xoolal Mahammed Boun Abdallah Dionne boobu mooy euh, premier ministre nga xam ne ni mu sérieux mais fecc na fi ay mbaras yoo xam ne comme pas possible quoi fecc yàgg ay mbaras xam naa faatu xamul yooyu mais bo bo effectivement sooy xool campagne yu Mimi Touré loolu nga ci loolu nga ciy seetlu mais loo xam ne également seetlu naa ko mooy euh, dafa difficile pour Mimi Touré mu assumer le bilan de la législature bi nga xam ne moom moo jàll. te mënoo jiite coalition boo xam ne pendant cinq ans wala boog dix ans yi ñu génn ñoom ñoo yore majorité assemblée nationale nga ñëw élection législative war a wutiwaat dagaan baatu askan wi ba pare doo défendre euh, seen bilan parce que am na bilan bu ñu war a présenter ci législature boobu ba tey da ngay gis ne Aminata Touré am na difficulté pour pour défendre bilan le parce que boo ko doon défendre amuloo défendre donc ñoom li ñuy def finalement. mooy yóbbu débat bi ci li nga xam ne mooy euh, comment est-ce qu'on le bilan de Macky parce que ñoom il trouve que le, le bilan de Macky Sall il est excellent et tout moom la ñuy waxtaane moo tax dém nga gis euh, kii di euh, Amadou Hott nga xam ne yoonam nekku ci élection yi ñu yóbbu ko ca permanence su Euh, permanence su euh, APR mu def benn conférence di wax ci li Macky Sall liggéey ak li nga xam ne fa la bëgg a jëlee jëme réew mi or élection législative en réalité nekkul une élection présidentielle boo xam ne dañuy waxtaane programme président ak li mu bëgg a def élection législative tey waa waa bennoo li nga xam ne moo leen waroon mooy def seen bilan ba pare wax ne buñ leen joxaatee majorité lii en tant que député lii ak lii lañ ñu war a def lañ bëgg a def boog pour di contrôler l'action du gouvernement yii ak yi loi lañ lañ am yéenay voté parce dama dafa mel ne dama gis euh, benn Mimi boo xam ne elle est un peu seule dans combat man dama jàpp ne euh, euh, bennoo bloc bi nga xam ne moom moo waroon a ànd ak moom pour di ko jàppale ci campagne bi bloc boobu gisuma ko gisuma ko trop trop je sais pas mais y écran noir lay def day dem di ñëw quoi mais ça donc. li may gis mooy benn Mimi boo xam ne elle est un peu un soutien bi nga xam ne moom la waroon am dëgg dëgg dëgg dëgg dans son combat amu ko beneen bi mooy euh, man mas naa wax fii ci live bi laa ko waxe woon ne président Macky Sall su bëggee les jeunes yi nga xam ne ñoom ñooy déglu Ousmane Sonko bu dee wax su bëggee atteindre cette cible jeune là ba li nga xam ne moom la bëgg a wax muy àgg ñoom il faut qu'il mette en avant les jeunes cadres de Benno Bokk Yaakaar loolu bi ma ko waxee benn waaye woo ma ne ma ne yow waa Benno dañ la waroon dafay consultance parce que da nga ko wax rek après ñu gis seen jeunes cadres yëpp ñu génne leen ñoom ñooy dem finalement dans les débats di wax et tout ma ne ko bon je ne suis pas dans leur stratégie ñoom <laughs> ils sont capables de réfléchir parfois même mieux que moi mais beneen bi mooy euh, tey da ngay gis Fatou par exemple Mimi jigéen la c'est une femme c'est la seule femme tête de liste ci campagne bi man su ma doon bokk ci campagne yu benn bokk yaakaar loolu dama koy transformer en avantage boo xam ne war na am doole parce que Sénégal électorat bi il est jeune et féminin cest di que jeunes yi ñoo ci ëpp ak jigéen ñi tey jii doon na baax jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci Benno Bokk Yaakaar muy Aminata Mbengue Ndiaye euh, je ne sais pas moi Zahra Iyane Thiam Adji Mbergane Kanouté euh, ak ñeneen ñu ma ci xamul euh, ñoo ñu doon na baax tey fu Aminata Touré nekk ñu gis leen. amul ay suñu dëkk la ñëw tey ak dëkk bi la dem ñu gis leen en bloc def ko un peu une campagne boo xam ne da ngay wuti euh, cible femme bi boole ceeg li nga xam ne benn am na mais malheureusement ma tu regardes la campagne ci as l'impression que ni Aminata Touré elle est elle est elle est un peu seule elle fait ce mais c'est pas facile beneen bi mooy euh, ñi ngi ñun mën a tuddee euh, Aminata Touré ku ko xam-xam ne bi Macky Sall ñëwee ci pouvoir bi li mu doon defendre dëgg-dëgg moom Aminata Touré mooy li ñuy tuddee les valeurs loolu moo taxoon mu tegoon bakkanam daanaka ci ñu pour poursuivre ñoom Karim Wade ak les gens du la ba boole woon ci Omar Sarr mii nga xam ne moom la àndaloon Dagana bërki démb te Omar Sarr moom moo jur ay doomi Aminata Touré c'est le père des enfants de Aminata Touré Aminata Touré bi mu nekk ministre de la justice tegoon na ay poursuites contre Omar Sarr pour pour mu gokke li nga xam ne moom la logoon ci pouvoiru ci pouvoiru Ablaye Wade finalement Omar Sarr non seulement kenn poursuivre ko mais poste ministre la la mujje euh, bërki dem moo Aminata Touré bañ àndee Dagana ma ne kon euh, voilà quoi mi noonu mais valeur yooyu la doon incarné te man gëm naa ne euh, valeur yooyu la lay lay incarné ba léegi donc su dee mënee cette campagne là ci li ma jàpp sama xel mu gàtt dama yaakaaroon ne ñi ñu tudde woon les apéristes authentiques ñi nga xam ne ñoo àndoon ak Macky Sall bi ñuy jóge pouvoir bi ñuy jëli pouvoir bi ñooñu également waroon nañu leen gis autour d'elle mais tu as l'impression que ni région yu bari su fa demee c'est plus les transhumants ñi mujj ñëw te ñooñu Sénégal yi ñoo leen wàccul suñu bopp seen bopp ñoom ñoo ñuy gën a gis euh, ak li nga xam ne mooy euh, les apéristes authentiques suñ ko mënee tuddee noonu nga gis à côté de Mimi avant ñuy ñëw ci coalition Yewwi Askan Wi nga gis une coalition comme Aar Sénégal Aar Sénégal man quand je leur campagne euh, dama naan euh, na Bocoum li ñu jàngaloon moom fàttewu ko parce que na Bocoum bokk nañ at ñaari bokk nañ classe ñaari at bi ñuy def bi may def sama formation en communication ñoo bokkoon classe da ngay gis ne ñoom dañuy exploiter les moyens yu ñu am c'est-à-dire que ñoom mënuñu am ay caravanes yu toll ne yi yi Ousmane Sonko di drainer ci foule wala Aminata Touré mais dañuy dañuy dañuy choisir euh, privilégier le contact direct avec les populations dem di wax ak ñoom et ça c'est important dans une élection parce que am na benn bindikat tubaab bi wax ne et là Ablaye Wade moo ko gënoon a comprendre ñëpp moo tax mu indi fi marche bleue mooy l'électeur souvent bu nekkee ci campagne il préfère am un candidat boo xam ne dina ko mën a gis jox ko loxo plutôt ko candidat boo xam ne da koy séen de loin. te naa ci ñëw léegi ak ñi nga xam ne ñoom ngay gis ñuy topp Ousmane Sonko te Thierno Bocoum il a compris tellement bien ça que il préfère dem directement au contact des populations te loolu manqué na ku mel ne par exemple Pape Djibril Fall Pape Djibril Fall candidat la boo xam ne man j'espère que wala boog j'espère que ne moom xam na ne du ñu dugg ci élection yi campagne bi démarré muy drainer ay foule di def ay meeting yoo xam ne da ngay xool ba fës bët yam Euh, ak ay nit loolu mënul nekk mënoo dugg ci ab élection ay à deux trois mois de l'élection bëgg noonu mais li ko doon mën a dimbali dëgg mooy privilégier euh, le contact direct c'est-à-dire que dem ci grand place yi di dem ci marché yi di dem ci entreprise yi di wax ak nit ñi loolu dafa am solo ci élection surtout bu fekkee ne nekkoo une grande coalition boo xam ne am na moyens yu ko permettre muy drainer ay foule fu mu nekk mais mais loolu j'ai l'impression que ni waa aar Sénégal ak ak Thierno Bocoum surtout Thierno Bocoum surtout moo ko gën a euh, comprendre que euh, Pape Djibril mënoon nañ ko ne di ci wax di wax ci yeneen ak yeneen incha allah dinaa ñëwaat ci yeneen coalition yi ci beneen jamono mais tey ko waxtu bi dañoo tënk il faut ñu jéem a li ñu bëgg a waxtaane ci mbirum euh, Ousmane Sonko ñu waxtaanee ko Ousmane Sonko moomu dama wax ne. man dama euh, jàpp ne dafa nekk en même temps phénomène intrus ci élection yi ba pare nekk ci phénomène intrus mooy lan intrus mooy koo xam ne dafa ñëw dugg ci loo xam ne en réalité moom waru caa bokk c'est-à-dire que comme suñu bureau bi ñu toog di waxtaan rek benn waaye boo xam ne ñun woowuñu ko invité wuñ ko yoonam nekkul ci li ñuy waxtaane mu ñëw dugg toog kooku dañu naan intrus la Ousmane Sonko li tax ma ma may wax ne intrus la mooy en réalité Ousmane Sonko du candidat ci élection yi Ousmane Sonko du candidat non élection yi du neex bañ fal ba falaale ko donc dafa ñëw bokk ci campagne boo xam ne su ko neexoon mu toog këram croiser les bras su fekkoon ne xëy na bëgg bëgg falu rek moo tax day toog këram croiser les bras parce que du falu mais il a préféré ñëw bokk ci campagne loolu moo tax ma ne quelque part intrus la mais booy xool ci biir élection yi da nga naan ndokk yàlla ba ca Ousmane ko bokkee parce que bu ca bokkul woon. defe naa ne non seulement <laughs> campagne bi du xumb mais am na ñoo xam duñu am ñu wax duñu am lu wax la preuve campagne bi dafa démarré ñu dem tabaski ba mu war a mat semaine wala en tout cas lu jege semaine campagne bi intéressé wul kenn Ousmane ko jël benn micro RTS ne tegal leen ma ko fële avant may commencé wax campagne bi démarré nga ñëpp commencé ndeket ma ne ah kon Sénégal ndeket ñu ngi campagne. campagne bi démarré ñëpp di ci wax te micro RTS boobu wax naa ko bërki démb alaa xajoon naa ko waxaat tey ñu bari dañoo jàpp ne c'est une c'est un fait banal euh, jurul ñu ci ñu ci taxaw mais dafa jëra taxaw parce que Ousmane Sonko dafa réussir benn affaire mooy reposer un débat boo xam ne sénégalais dañoo demoon ba yaakaar ne c'est quelque chose de normal dans une démocratie kë nga mën a toog lu ma dix ans faatu doo gis benn leader opposition bu wax ci RTS RTS bi nga xam ne yow da ngay cotiser Moustapha di cotiser Diène di cotiser suñuy njaboot di cotiser soo ko di cotiser Khalifa Sall di cotiser pour que RTS mën a nekk li mu nekk. yaa ngi dégg bu leen dee tabaxal tey ay tuuru xaw ma ñaata étage sa xaalis a nga ca ci lu leer laa la wax sa xaalis ma nga ca xaalis Ousmane Sonko ma nga ca est-ce que kon mën nga comprendre média u service public bu toll noonu ci Sénégal fi mu toll ci démocratie ñu ne toog nañ lu mat fukki at bépp leader opposition boo opposition boo xam ne wax nga fa rek da c'est clair xam nga fay mooy lan mooy campagne rek nga fa am droit wax te campagne avant nga fay wax da ngay joxe caution faye ngoog boo joxee caution RTS du tax ñu jël la de il faut nga wuti parrainage boo wutee parrainage dem conseil constitutionnel conseil constitutionnel validé ne faatu candidat la RTS doog lay mën a jël. vous pensez que c'est normal ci démocratie ci réew fi Sénégal toll ak fi ñu li ñu xeex yépp pour Sénégal nekk li mu nekk am de médias du service public moo tax ma ne l'acte de Ousmane Sonko du débat le débat mooy le lan moo indi act bi te Ousmane Sonko euh, ñu bari euh, man en tout cas loolu remarqué da ngay yaakaar ne day def dara nga yaakaar ne moom réfléchir ci wala ay caaxaan la ko jàppe alors que lu ñor la ci moom te bu ko defee pare débat bi muy jur moo lay wan ne lii li muy wax lu ko intéressé la donc. li am solo te am solo mooy man à chaque fois may wax ci loolu loolu lay insister mooy il faut faire la différence entre l' institution RTS ak les journalistes professionnels yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk di fa liggéey parce que c'est des professionnels yoo xam ne soo leen indi woon fii ci Walfadjri ñu def fi lu ëpp fuuf li fi Moustapha Diop di def wala Pierre Edouard wala feneen ak keneen ak keneen c'est clair le débat n'est pas à ce niveau là te les travailleurs de ñoom ñoo la gën a xam ne débat bi nekkul ci ñoom mais dafa nekk ci institution RTS ak l'autorité politique bi nga xam ne moom mooy tànn kañ fa teg kañ fa teg muy Racine Talla man c'est quelqu'un que je ne très bien parce que dama liggéey ak moom ci benn entreprise man bi may nekk populaire nekkoon chef du des desks politique et économie du populaire Racine Talla moo doon directeur général bu 7FM on était dans le même maa ngi découvrir Racine dëgg-dëgg Fatou déglu li ma lay wax bi yuusu nduur Youssou Ndour mii di xëccoo groupe comme 7 moom ak Bara ku nekk ne yaa ko moom parce que bi ñu koy créer ay ay associé lañu woon ñu dem ba ci biir ma seen histoire yooyu ñu koy xëccoo xëccoo bu metti ma nettali la benn guddi fii lañ daje ci Solida fi la imprimerie wu comme Comset nekkoon Youssou nduur yónni fa ay nerveem moo tax coowal nerve yi ngay dégg yàgg na ci réew mi Youssou nduur yónni ay nerveem xam mbay moo doon directeur généralu groupe Comset wuti ay nerveem rëbës parce que moom rëbës la dëkk moog Racine Talla ñu ànd ñu daje fii euh, ci Sodida xeex bu metti pour xam kan moo war a jël imprimerie bi guddi trois deux heures trois heures du matin man mi maa nga fa woon parce que boobu maa ngi liggéey journal comme euh, euh, journal populaire xam ne groupe comme set moo ko am man foofu laa découvrir dëgg-dëgg Racine Talla muy un grand professionnel ku ñeme nag am fit parce que Racine lu tuuti la mais ni ni ponkali Youssou nduur yi ngand ngand yëpp daw leen moo yaa xam sama kanam li ma lay wax ni dama ko fekkee lu ma parfois da ngay ay euh, les gens euh, mais loo fekke la lu ma fekke gis nga racine moom euh, ma nett la beneen xeex nañ imprimerie moom ak yaa xam mbay ak Youssou Ndour ak les gorilles de Youssou Ndour fii Sorida gi soo demoon laaj waa populaire ñu nett la ko léegi li ma lay wax nii lu ma fekke la gis nga toog nañ benn jour Médina suñu rédaction ci biir moom comme fii Walfadjri ñu toog rek gars yi envoyé au moins lu mat vingt gendarme ci biir rédaction bi ñu ñu fees dell immeuble bi boobu euh, populaire mi ngi Médina Racine Talla fekke na ko Yaxambaye fekke na ko ñu ne lu xew ñu ne Youssou Ndour la ñuy ñëw moom ak Cheikh Tall Dioum pour installer leen comme président ak directeur général du group parce que juge bi nee na ñoomam groupe bi xeex bi ne com ñun ak gendarme yi ci populaire tey am na benn journal bu tudd Mbaye Jacques Diop mi ngi ministère des sports soo ko woowoon mu wax la ko parce que jour boobu moom moo jóg saaga Youssou Ndour ba ñoom ñaar ñu nar a jàppante suñu biir rédaction lépp fekk naa donc réew mi nañu bàyyi euh, di sonal nit ñi ci yenn affaires yi kanto di ay nerveeg na ñoo ko fi yàgg na fi euh, d'ailleurs bi Youssou ndur xëccoo ak ñoom Racine Tall ak ñoom yaa xam mbay ñoom Bara moo leen fa tegoon bi ñu xëccoo xëccoo ba Youssou Ndour xam ne mënatul contrôler groupe bi mënatu ci dara ci la génne woyam boobu xam nga way porte presse porte press way Youssou Ndour boobu tudd porte presse ñun ñii la ko wayaloon ci way boobu lañu doon waxee ne pour wax ñu ne ñun duñ ay vrai journaliste mu ne euh, picc mi ci ndobin yaay ramatu da cay naawandoo donc mais na ñun ay nee na journaliste yi ñooy picc yi vrai ndobin yi mooy ram mooy mooy euh, journaliste dëgg yi mais ñun ay ramatu lañ dañ ciy naawandoo dong xam nga way bi porte presse Youssou Ndour a ko way ñun ñi la ko wayaloon lu leer laa la wax boobu ñoo ko sonal ba mu way ko mais pour en revenir au, au, au débat sérieux que nous sommes en de faire mooy dama doon wax ne euh, Racine Talla boobu c'est un vrai professionnel mais fa mu nekk nañu ko tëggee nañu ko jiitee mënu ci dara lu dul def li nga xam ne moom la autorité politique bi bëgg autorité politique bi kay mooy kan mooy Macky Sall parce que Macky Sall rek moom laa gis mu jël un DG de la RTS boo xam ne militant la bokk ci direction bu partem nekk mair ci dëkk bi mu jox ko RTS mu koy jiite. xam nga ñi ngi wax naan opposition bi du ñu wax euh, du ñu wax fële du ñu wax euh, commence ça s'appelle euh, du ñu wax RTS. mais boo seetloo leen démb rek am na sama benn naataango bu baax bu nekk RTS bu ma woo di ma ko fàttali mu ne ma c'est vrai yéen a ngi wax opposition bi mais APR ci boppam biir APR am na tendance yoo xam ne may ñu leen ñuy wax RTS. biir APR ma jox la exemple Aminata Touré mii di defendre RTS ba keroog bi Ousmane Sonko dindee seen micro bi mu mu def mu changé profil am ci page Facebook am def ci micro RTS et tout Aminata Touré mais am na ay temps moom ak Macky Sall seen relation neexootul Aminata Touré du jàll RTS Aminata Touré mi te boobu mooy mooy président conseil économique social environnemental du jàll RTS. ak yeneen yoo xam ne sax su ma ko raconté woon ñu ne ma ku nekk RTS moo ma ko wax mais a ne def nañ ko Amina Touré foofu ci RTS donc moom Amina Touré li Ousmane Sonko def moom dafa bokk ci ñi mu ko defal loolu mooy li leer mais booy dégg Sénégal ak ni muy doxee tu as l'impression que ni li Ousmane Sonko def c'est un c'est-à-dire naan ñun est-ce que euh, à par man ma ko sañ a wax est-ce que parfois du ñu am un peu d'hypocrisie quoi c'est-à-dire oh, ngi noonu mais Ousmane Sonko donc ma lay wax ne. dama jàpp ne ci élection bii mënoon naa toog këram bañ cee bokk te li pouvoir bi bëggoon xëy na te Aminata Touré waxoon na ko bi ko bi ko Ousmane Sonko ne tata mi doo campagne mu ne ko yow tamit tonton Sonko tonton doo campagne mais ñoom ñaan ñëpp maa ñu ngi campagne à la seule différence que ne Aminata Touré day campagne pour être élu Ousmane Sonko day campagne pour fal ay nit te boo xoolee faatu campagne bi ni muy demee ngay seetaan la campagne de Yewwi Askan Wi da ngay xam ne Ousmane Sonko mii wax dëgg yàlla nañ ko nangul rek li ko yàlla def parce que day tax mu yomb ci ñun ñëpp benn waaye nee na ma Macky Sall bu mu muusoon te bëgg a régler problème Ousmane Sonko da koy bàyyi yàlla. bu yàlla nangoo lim def ci moom rek Sénégalais bàyyi ko mais tant que yàlla nanguwu ko mënoo ci dara te yàlla euh, dafa am benn waaye baax ma ko doon mu ne ma yàlla boo ko dee bu defee ngay xeex bu defee bu defaree Moustapha ngay xeex Moustapha da koy dollil pour wan la ne maa ko def te mënoo ci dara. mais soo xoolee Ousmane Sonko ak li nga xam ne moom moom la drainé comme problème ci Sénégal depuis mu dugg ci politique ba léegi man su may seetaan campagne bi gis nit ñi ànd ak moom dama naa non lii nekkatul politique kese nañ ko wax rek mu leer. am na loo xam ne moo tax waa Sénégal di ko topp kañ nga mës a gis fii ci Sénégal Ablaye Wade sax amuloon loolu un homme politique di def caravane fayoo nit ñi xaalis ñuy ñëw ay mbooloo yu bari ba pare di jël ci seen poche di la jox. ci biir caravane bi ngay ñu ñuy ñaq ñuy ñuqi seen poste di la jox nga dem mbuur heure añ xale yi di wañ na di way naan añuñu Ousmane Sonko moo fiy ñëw mais il y quelque chose boo xam ne ça sa doit faire réfléchir le pouvoir les journalistes ak tous les observateurs pour ñu jéem a étudier c'est quoi le phénomène Ousmane Sonko lan moo ko jur parce que Ousmane Sonko dàqul jàng ci réew mi gënu fa rafet. gënu fee jantal je sais pas moi bu ñu doon tànn xëy na euh, ñi gën a kii ci réew mi man la ñuy jël avant moom mais mais malgré tout man su ma génne fii ci mbedd bi kenn lijjantiwuma mais tu mais attends quand tu regardes les caravanes de Yewwi Askan Wi da nga naan Ousmane Sonko c'est un phénomène point final comme ni Ablaye Wade nekkee woon en son temps un phénomène point Ousmane Sonko c'est un phénomène point c'est-à-dire que tu regardes mënoo ko expliquer su dee wax am na Ousmane Sonko ñu ko dàq wax ci dëkk bi rek fi nekk def discours rek xanaa Idriss Seck ko dàq ak ñeneen ak ñeneen mais waxuma nit ñi koy topp parce que nit ñi mën nañoo topp ku ne mais da xool nit ñi koy topp nan lañ koy toppee nan lañ koy toppee tu as l'impression ñii ñi àndatuñ ak seen sago hypnotisé tu as l'impression que ñii dañ leen hypnotisé parce que un homme politique bu ñëw taxaw def caravane nit ñi di am réaction yooyu man mënoon naa comprendre Sadio Mané di jàll nga gis réaction yooyu Youssou Ndour Wally Seck parce que domaine bi ñu nekk la mais un homme politique qui suscite même réaction ci nit ñi que bu fa Waly Seck jaaloon wala Youssou Ndour wala Sadio Mané wala parfois même un khalife général ou je ne sais quoi il quelque chose boo xam ne man damay togg mu jàgg ma ne man damay analyser mbiru Ousmane Sonko dama ci bëgg a sonn say boo ñu ne mbiru yàlla la point parce que donc man mënu comprendre ma ku comprendre nag nga wax ma mais analyser naa ko ne peut-être lim leen di wax moom lañ mën a dégg mais da nga naan à côté am na ñuy wax la même chose nga ne peut-être que euh, je sais pas mois nouveauté bi la am na ñeneen ñoo xam ne ñoo mujj ñëw Ousmane Sonko boo nee peut-être Ousmane Sonko jantal la mais ñu ko gën a jantal rek à commencer par Moustapha ak ñeneen ak ñeneen soo ne Ousmane Sonko il s'habille bien il y a des gens qui s'habillent beaucoup mieux mais léegi qu'est-ce qui explique ça peut-être mën nañ jàpp ne. ñun ndawu Sénégal wala boog man peut-être bokkuma ci ndawu Sénégal yi parce que ba nañu wax ne yow doo jeune ndawu Sénégal yi <laughs> peut dafa am ay ay année année la classe politique di leen décevoir di leen décevoir di leen bañ yaakaaroon ne amatul kenn ku leen mën a wax un discours bu ñu mën dégg. ñu toog un bon jour benn waaye bu tudd Ousmane Sonko ñëw commencé di campagne di leen wax loo xam ne dès que mu wax leen ko dañ ciy gis seen bopp et ça aussi c'est important parce que li mu leen wax c'est pas un discours aérien boo xam ne tu as besoin de réfléchir mille fois pour man ko comprendre mais su leen waxee dès ko mu wax dañuy gis seen bopp peut-être mën na ko expliquer. peut-être également fi mu jaar ak tuuma yi ñu ko teg yépp mu fexe ba génn ci mën na tax ñu ne ñu identifié wu ci moom mën na nekk peut-être également les gens se Euh, mën nañ identifier wu parce que c'est quelqu'un qui est sorti de l'école publique sénégalaise jaar amul amul amul benn euh, héritage bu mu bu ko mën a may yenn yi comme un papaam nekkoon un grand homme politique wala yu demee noonu wala nekkoon président de la République tout peut-être ñun chaque jeune sénégalais se dit damay gis Ousmane Sonko sama bopp mais loolu bu ñu ko waxee aussi mën nañ gis Macky Sall suñu bopp parce que Macky Sall également si suñu école publique bi ci suñu famille la jógee mais Macky Sall bu génnoon tey mën na drainer ay foule ça c'est sûr mais je pense pas que mu am les mêmes parce que man li ma intéressé nekkatul les foules parce que les foules du ñu gagné jamais une élection ku weddi nga laaj Ablaye Wade bi muy perte élection yi bu daan meeting dañ naan ay 1 million de personnes dafa nekk teewul dañ ko dóor donc les foules ne gagnent pas d'élection mais man li ma jaaxal mooy quand je regarde les foules les jeunes filles et garçons yi nga xam ne ñooy ànd ak Ousmane Sonko di daw seen ay réaction Moussa Fane comme dañ leen hypnotiser ces réactions yi laa moo et c'est ça ce phénomène là pour man moom la ñu étudier gul dëgg-dëgg pour man ko comprendre et beneen constat bi mooy tu as l'impression également que ni Ousmane Sonko lu pouvoir bi gën a dal ci kawam luñ ko gën a saaga gën gën ko wax lu bon nit ñi di ko gën a topp ndax lay Wade meloon na noonu ab lay Wade lu nekk pouvoir juuf daan na ko wax mais lay Wade amoon na benn chance. mooy tasewuloon ak jamono réseau sociaux yi le pouvoir de Diouf la parti socialiste ñoo daan wax naan wàdd lii la wàdd leer la te ñoom dafa amoon benn élégance boo xam dafa amoon ci le pouvoir de Diouf daanañ accuser wàdd lu nekk mais duñ àgg ak moom fenn fi Ousmane Sonko nag ay adversaire am dañuy attaquer sa vie privée attaqué yaayam attaqué papam attaqué léppam di de di jël ay images yu ñaaw di ko collé ci net bi nga koy gis tous les jours loolu lépp teewul su génnee nit ñi topp ko écoutez nañ xool lan moo ko waral man j'ai vu benn vieux à à Tamba ak euh, Tamba je pense c'est Tamba ak Ousmane Sonko dama ne mais attends qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe ah qu'est-ce qui se passe j'ai bi mu demee ci dëkku ñoom ñoom dëkku ñoom euh, euh, séeréer yi ñoom ñoom Ablaye Bopp ay film laa ko jof yooyu gis naa benn jigéen boo xam ne man soo suñ suñ tafoon Ousmane Sonko teg teg photo Wally Seck da nga naan kii Wally Seck la gis parce que day day yuuxu bay tàggoog sagoom te loolu man artistes yi laa daan gis ñu leen koy defal. gis ay pas voilà mbuur nga gis ay pas yuy daw daw daw daw ah. te am na lu tax te ñooñu pas yooyu seen différence ak pas ya nekk parcelle mooy ñoom <laughs> kenn joxu leen xaalis pour ñu ñëw di daw. Ah. alors que pas ya nekk parcelle ñoom dañ ne julliwuñu tisbaar julliwuñu takkusaan julliwuñu timis. julliwuñu gee euh, ndax euh, Amadou Ba moo leen woo mën ne leen bu Amadou Ba dul woon amadu Ba nekk li mu nekk bu leen wooyee du ngeen ñëw bu leen ñu tànqal bu leen bu leen tooñ Amadou Ba Amadou Ba nié pour rien xaalis bàjjo bi moo bari doole rek du leneen nañ ma baal alors mais mais c'est c'est un vrai phénomène Ousmane Sonko et ça ça mérite d'être étudié et j'espère que euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo jàng science politique jàng communication ci réew mi journalistique yooyu dinañ bind ci ci loolu parce que euh, Sénégal aussi loolu bokk na suñu problème mooy journaliste yi sama bopp laa koy commencé ñu duñu duñu bind lu bëree bëri ku mel ni ne Ablaye Wade par exemple bu doon français ay centaines de livres ngay gis sur Wade ku mel ni Ousmane Sonko mi bu doon un homme politique français wala américain ay ay livres yu bëree bëri la ñuy bind tu tu n'imagines pas combien les américains les journalistes américains lañ bind ci ku mel ne Hillary Clinton ku mel ni Obama man j'ai eu un livre sur Hillary Hillary Clinton Hillary Clinton bu ñu tuddee Hillary Clinton de A à Z quand tu lis ce livre là da ngay comprendre lu bari bari ci Hillary te li ma leer mooy li Ousmane Sonko def euh, Sénégal Hillary Clinton mënul def xaaj ba aux États-Unis emprise bi Ousmane Sonko am sur la sur les jeunes sénégalais. man gisuma un homme politique en Afrique ou ailleurs bu am emprise boobu xanaa kay da ngay lim temps ñoom Che Guevara xaw ma ñan ak ñan yu demee noonu mais là ce phénomène là ça mérite d'être étudié te malheureusement le pouvoir j'ai l'impression que ne à chaque fois que ñu am un phénomène comme ça en face de du ñu am intelligence bi Diouf amoon Diouf amoon na intelligence boo xam ne Ablaye Wade adversaire am la te ab Wade li lim bëgg yépp mooy remplacer juuf mais Abdou Diouf amoon na benn intelligence quand mooy fu Sénégal tollee ci jafe-jafe ba mu xam ne affaire bi tëna ko mu fexe ba ab lay waa Wade ñëw mu waxtaan ak moom réew mi dal ñu ko ne liggéey jusqu'à ce que Ablaye yàlla dogal Ablaye Wade ñëw au pouvoir il a pris le pouvoir mais fii avec ce Ousmane Sonko là Moustapha jeunes yi ma gis ñuy ànd ak moom defe ko Thiès Tivaouane Mbour Kaolack Fatick euh, euh, Tambacounda ak yeneen i gox yoo xam ne et ça c'est important parce que suñu homme politique yi généralement surtout ñi ne ci opposition bi Ablaye Wade noonu la meloon dans les centre urbains lañ daan am doole fu mel ne dakaar fu mel ne Thiès ak yeneen yeneen mais xoolal yeewi askan wi bu ñuy dem dëkk yi ñu même dëkku àll yi c'est les mêmes réactions moo tax ma ne ñu yor euh, waa yeewi euh, ñoom Déthié Fall ak ñoom Khalifa Sall am nañ intelligence xam nga la mooy intelligence Moussa Faye ñun bu ñu nekkee groupe. ñuy ànd Aïda Mbodj wax na ko fii bi mu fi ñëwee ci koor gi su ñu nekkee groupe ñuy ànd su fekkee ne ñun li ñu bëgg jéen jiite rek moo war a tax ñu am ko dañu war a ànd ak jéen mu jiite sinon duñ ko am jame ku bañ li yàlla dogal torox nga jëm waaye yeewu askan wi bu leen dee xool dañoo xalaat seen bopp ne ñun Aïda Mbodj wax na ko fii dëkk bu ñu dem Khalifa Sall nga fa may Maymouna Bousso ma nga fa Aïda Mbodj nga fa parfois Cheikh tijaan Youm ma nga fa Euh, Déthié Fall ma nga fa mais nit ñi nit ñi buñ génnee ñu wax yeewi de Sonko la ñuy wax Sonko Sonko à partir de cet instant là l'intelligence mooy lan mooy nag Sonko demal ci kanam mais jàkka buñ ci dajee ñun ñëpp ñun ñett bu buñ bëggee jiite julli du fa am il faut kenn jiite ñeneen ñu ne ci ginnaaw parfois même kii jiite ñun ñi ji ñun ñii ci ginnaaw ñoo ko xam-xam fu mais na na kenn jiitu ils ont accepté que ni ñoom ñëpp. comme euh, le dit euh, Maïmouna Bousso ci benn vidéo bu may seetaan mooy ñi bokk ci yeewu yëpp ils sont d'égale dignité mais à partir du de de de l'instant où ñoom xam nañ ne ñu bëgg a wuti jaare ko ci Ousmane Sonko moo gën a yomb jaare ko ci keneen ñu jiital ko mais loolu mooy intelligence te loolu boo nekkee ci coalition nanguwoo ko frustration ngay deewaale wala dañ nga cey génn génn bu yomb foofu le pouvoir amee chance parce que pouvoir par exemple soo xoolee Macky c'est le chef de Benno ñëpp dañ koo nangul xam nga lu tax parce que c'est le président de la République moo yore décret bi moo yore gafaka gi su ko neexoon Macky Sall bu ko neexoon tey bala ñoo julli timis Moustapha Diop nekk millionnaire su ko neexoon tey bala ñoo julli timis man ma nekk millionnaire lu leer laa la wax su ko neexoon tey bala ñoo julli timis ma nekk ambassadeur wala ministre wala leneen du dara ji moom. à partir de cet instant là ku am loolu jiite coalition da ngay téye coalition bi mais coalition bu opposition xam lan moo koy jafeel mooy ki ko jiite amul lu mu jox kenn amul post yu mu joxe amul kees bu mu tibb di joxe lenn rek moo mën a am mooy coalition bi ñépp ànd am intelligence nangul ko te loolu yeewe njëkk wuñ ko fi de Abdoulaye li Landing Savané Amath Dansokho ak ñeneen ak ñeneen yàgg nañoo ànd ak wàdd ci opposition bi. ñoom ñëpp ñu ànd ak Wade ci opposition bi ñoom ñëpp ñu xam ne li Wade man mënuñu asaka ja mais élection bu ñëw ñu nekk candidat Wade nekk candidat bu ñu demee du Diouf dóor leen li waa ji wax ñafal ñafal Abdou Diouf dóor leen ñu daanu. élection bu ñu dem Abdou Diouf dóor leen ñu daanu bañ àggee ci 2000 xam nga lu Abdoulaye Bathily ak Landing Savané def ak euh, kii nu mu tudd soxo dañ ne ñun ay parti de gauche lañ ñun gauche lañ bokk. Ablaye Wade mii parti de droite la libéral la mais li leer mooy Abdou Diouf mii mënuñu ko fee jëlee mukk te nanguwuñ Ablaye Wade nekk suñu chef Abdou Diouf du fi jóge mukk te nanguwuñ Ablaye Wade nekk suñu chef ñu dajaloo ñoom ñooñu créer li ñuy tuddee CA 2000 CA 2000 euh, convergence pour l'alternance je crois que noonu la tuddoon ou coalition coalition pour l'alternance en 2000 c'est bien coalition pour l'alternance en 2000 xam nga bi ñu ko créer ni ñu def. dañoo dem France fekk waa du mu tëdd ci këram ne moom pare na ci politique Sénégal parce que ay atam may mënatu ko ñu ne ko ñaar lañ bëgg bi ci njëkk mooy waxal nguur sii di Idrissa Seck renouvellement PDS sii mu nekkee di ko def ba xeex di am ñuy reyante na ko na ko dakkal tout de na ko arrêté ñaareel bi mooy ñu dem dakaar ñu def la suñ candidat sama benn grand sama nee naa ko naa lay fay consultance journaliste bu mag la mais mais mag la léegi quoi souvent yu mel nii moo ma koy fàttali. bi ñu jëlee Ablaye Wade indi ko def ko seen candidat lay Wade jàkkaarloog ab du c' est vrai que Moustapha Niasse nekkoon na candidat ku mel ne Djibo ko nekkoon candidat mais coalition bi ëppoon doole dëgg li ko jur mooy ab Ablaye Bathily Dansokho Landing Savané dañu accepter renoncer seen ay ambition présidentielle ne Wade jiitul lu mu jur. ñu yóbbu Abdou Diouf deuxième tour bi ñu yóbbu ab Abdou Diouf deuxième tour créé FAL 2000 muy front pour l' alternance Moustapha Niasse ñëw bokk ñu gën ko yaatal Abdou Diouf daanu waaye yeew yii ku xam Khalifa Sall xam ne expérience politique du ma ne kenn ëpp ko ci mais ñu ko fa ëppale bariwul ku xam ay Aïda Mbodj la même chose ku xam Déthié Fall que je connais très bien quand même xam ne nit ku intelligent la stratège la boo xoolee ni ñuy defee xam ne quelque part ils se disent quelque de très simple bu buñ sañoon nekk chef di jiitu mais comme ñun fu ñu dem du ñu dégg Khalifa Sall du ñu dégg Déthié Fall du ñu dégg keneen Ousmane Sonko la ñuy dégg dañ naan ko sa waay kaay jiite jàkka ji suñ gagné ba pare après ñu xool ku nekk nooy def et loolu pour man c'est ce qui est intelligent c'est ce qui est intelligent te tey loolu bu fekkoon ne opposition bi yépp ñi nga xam ne dañuy euh, wax ñépp ne opposant lañ su fekkoon ne nangu nañ li ñu nanguloon Ablaye Wade en 2000 que ni Wade gënoo fi am nga ay défauts yu bare baree bari wuuruñu ne buñ la defee président yaay gën Abdou Diouf mais leer na leen moom leer na mooy Abdou Diouf baaxul te il faut mu jóge fi te pour mu jóge fi il faut ñu nangul la gis nga opposition bi ñoom ñëpp bu ñu àndoon dem seeti waa Yewwi avant bon mënatul nekk parce que <laughs> ñu ngi ci biir élection yi ne ñun xam nañ ne Ousmane Sonko mii gënu fi am na idée mi ngi wax et tout mais dara ñu ne. su fi ñëwee mooy gën Macky parce que dara wóoruñ ci nag dañuy rafet njort rek mais ñoom du man maay wax nag ñoom opposition bi gëm nañ ne Macky Sall moom baaxul à partir du moment baaxul il faut mu jóge fi pour mu jóge fi il faut ñu nangul kenn tant que amul duñ dem te loolu mooy li nga xam ne moom la yeewi accepté te loolu man gëm naa ne moo may yeewi doole jim am nii ci élection yi parce que nañ waxante dëgg ku xool wax naa sànq ne fuul du fal mais ku xool caravane yu yi xam ne quand même coalition bi am na doole nañu wax dëgg rek te li leen ko may bokk na ci ñu nangu ne Ousmane Sonko mii jiital ko mooy mooy mooy mooy mooy jàmm ji parce que jamono ju ne ay ay dëbëj wax na ko bi mu fi ñëwee jamono ju ak phénomène ba cay feeñ. Sénégal fii ñu toll nii Ousmane Sonko malgré défaut yu mante am xamul xaw ma ko xaw may défaut ma xaw may qualité am fréquenté wu ma ko dew ma këram toogu ma di waxtaan ak moom mais boo xoolee rek xam ne ndaw ñii moom la ñu àndal te comme ndaw ñooy bote seen ay yaay ñooy bote. ah jiital ko mooy jàmm ji xam ne mooy phénomène bi donc mi ngi noonu loolu moo tax ma nekkoon kon Ousmane Sonko en même temps intrus la ci mbir mi parce que mënoon naa toog këram ndax du candidat moom Macky yem rek du candidat mais Macky Sall yemuñu parce que Macky moom amul droit battre campagne parce que président de la République buy campagne législative kenn mës koo gis mais Ousmane Sonko comme du président wu kenn liberté mooy dem fu ko neex wax lu ko neex te loolu campagne bi wane na ne effectivement phénomène la ci biir campagne bi. fait il est tellement phénoménal dans cette campagne là que même Benno Bokk Yaakaar boo seetaanee seen meeting yi parce que yenn saa ma jël sama temps seetaan ci mënuñoo jël kàddu te waxuñu Ousmane Sonko te Ousmane Sonko du candidat Moustapha mi ngi mel ne ñu am match box match box man ak jéen ñooy adversaire ñoo war a box ma fekk la ci tur bi ma nga toog ma jël kurpañ dóor la lu ci sa yoon Ousmane Sonko Ousmane Sonko du candidat donc wax ak wax ak moom perte temps la mais bon malheureusement bu ñu waxul ci moom également campagne bi du neex mbokk yi ñu ngi gërëm ñëpp di leen sant bu baax a baax ci ànd bi nga doon ànd ak ñun 16h dem na ba tegal ñaari minutes te dañuy dem dafi keppaar gi su neexee yàlla di jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne ñoom la ñuy àndal ci waxtaan wi di ko def ak beaucoup de plaisir ak fu nu manti nekk euh, ci réew mi. Euh, ñi ngi leen di gërëm bu baax a baax Chérif Sall maa ngi lay nuyu bu baax a baax Chérif Sall moo bind mu ne Walf TV télé Sonko da nga koy laaj Macky Sall boo ko laaj dina la wax ba xam Walf TV télé Sonko la war a deet parce que Chérif Sall ma xamal ko lu gàtt parce que par hasard rek laa ci yem li faj Fadjri daj pour que Ousmane pour que makki Sall nekk président de la République Walf Fadjri dajul asagaja asagaja laa wax pour Ousmane Sonko te lool da koy laaj Macky Sall bu xam ko Moustapha naa la wax ne waxuma sax Walf Fadjri mais man sama bopp Ousmane Macky Sall bo bokk na ci homme politique yi ma gën a xam ci Sénégal xam nga man Ousmane Sonko mosuma toog ak moom en dehors de def ak moom entretien nii pour la télé xaw ma këram xaw ma permanence parti mosuma mosuma toog ak mosul am mosu ñu toog en dehors de Walfadjri gii mu ñëw fii wala biñ bi mu génnee xaw ma xaw ma prison wala xaw ma garde à ñëw fii di di nuyu si Cheikh Niass ci laa ko mës a ci laa mës a toogee ak moom nii mu toog mais Macky Sall mii. ànd naag moom man waxuma waxuma waxuma sax Sidi ak Walfadjri mais man personnellement ànd naag Macky Sall au moins trois fois def le tour du Sénégal ànd naag moom wër Fuuta ba mu jeex ci laa découvrir ay île du Saloum ak ay Medina Njatbeeg dëkk yooyu ay euh, Wawaldeeg dëkk yu ay dëkk Moussa Sow boobu ànd naag moom wër Casamance ànd naag Macky Sall wër Saloum wër Ndukumaan te non seulement da nga daan ànd ak moom. toute la journée ngeen di daw di di wër dëkk bi di dem di seeti ay nit mais bu guddi jotee même hôtel bi ngeen di nekka donc c'est un homme politique que je très bien te xam naa man personnellement li Walfadjri daj pour qu'il soit au pouvoir te bi ko Walfadjri daj daju ko woon parce que Macky Sall dafa neexoon Sidy Lamine wala dafa doon defal dara Walfadjri mais dañ ko dañ ko doon def parce que dañu gëmoon simplement que ni c'est un sénégalais boo xam ne dafa am droit su ko RTS xañee ne du fi wax Walfadjri jox ko occasion man fay wax way amoon ci yaakaar Mamadou Makhtar Sarr mooy suñu correspondant ca Touba Mamadou Makhtar Sarr laaj ko danaan toog guddi Sidi Lamine jël téléphone woo ko Makhtar foo nekk mu ne ko maa ngi maa ngi Kaolack mu ne ko jëlal Jakarta Jakarta nga dem fekk Macky Sall Fatick nga jël ko balay fajar nga envoyé élément bi ñu teg ko ci télé bi mu dawe Fatick dem dawe Kaolack dem fekk Macky Sall Fatick jël Macky Sall mu wax li mu bëgg a wax ñu yónnee ko Walfadjri fajar ñu teg Macky Sall booba de Ablaye Wade waxul woon ne Walfadjri télévision Macky Sall la donc nañ nañ gore quoi hmm? nañ gore rek c'est tout c'est tout man li ma leer man loolu laa gëm xaw ma dinaa ko fekk xaw ma du ma ko fekk yàlla nañu ko fekk ñun ñëpp mais Ousmane Sonko mi su fekkee ne mooy li gën ci moom gën ci Sénégalais mu nekkoon bu nekkoon président de la République ëllëg la ñuy doog a xam lan mooy Walfadjri dinañ jàkkaarloog Ousmane Sonko ba mu xam ne jàkkaarloo na ak moom bu fekkee jaarul ci yoon loolu rek mooy Walfadjri du leneen li ci des nag. ku nekk yaa xam looy nu ñu koy wax sax golo xam lu mu boote doomam mais li am solo rek Moustapha ñu terminer ci loolu mooy il faut qu'on après une chose ci réew mi mooy faire la différence ni ma ko waxee sànq ci noonu la valable ci Walfadjri noonu la valable ci TFM noonu la valable feneen mooy faire la différence entre la direction de l'entreprise bi nga xam ne nit moo koy incarner nekk un manager boo xam ne dafa soxla di wuti ay partenaires di wuti ay leneen ak leneen pour mën a dundal këram mën a fay sax ay salaire loolu il faut nga def différence entre ñooñu ak une rédaction boo xam ne ay journalistes professionnels ñoo ko composé di def seen liggéey ci jàmm ak salaam le seul risque le seul risque mooy am un patron boo xam ne danaa journalistes yi dee leen xool fii wala dee leen defe nii man je le disais tout tout le temps à Sidi Lamine et loolu mooy sama discours jusqu'à présent comment il fait comment Sidi Lamine faisait pour fay ma salaire à la fin du mois xaw ma ko sama yoon newu ci ñu teg ci buñ ci tegatul ma dem seet leneen mais bu ma toogee nag sama rédaction wala ma toog di wax li may wax seetuma ci Sidi Lamine seetuma ci keneen je dis ce que j'ai à dire point final bis bu ma demee nag ba mënatuma ko wax ma bàyyi def presse dem defi leneen ah jaay këriñ wala ñu ko wañ jërëjëf Fatou <laughs> ba <laughs> ba àllarba ak jàmm incha allah.